thank you

no seereer ne nu mbañu ndaab taa cosaan ne in daan we mbaasu ñu nag oon cosaan ne il yaam pexe njege ñoon ñaanal jibbi maa lahum xaaliboona mu ne ñu ngi lay ñaanal ñaan boo xam ne mooy bi juddinaa umul xaaliboon suñu nit ñi suñu mbooloo mi ñooy xel si na la not ci lépp luñu song dinañ ko daan incha allahu rabbi kon nag waxtu bi def ñoo xoj kon nag allahu mu ne ci tënk rek lu mu bëgg a wax rek mu ne allahu ahlam bil muraad yàlla moo xam lum namm waaye ci tënk daal mu ngi nuyu mbooloo mi di ñaanal gan yi nga xam ne ñoo fi teew ñëw nañ fi yàlla nañ lépp luñ fi uti rek ñu ñëw fekk ñu ci jàmm bu ñuy dellu tamit dellu si jàmm. mu ne wax ji jarut muy bëri jarut tamit muy gudd. gannaaw bu mu gërëmee waa dëkk bi. góor jigéen mag ak ndaw. Oh. mu ne sa papa. ak Sida Sarr mi. Mbaye Sarr ak Mbaye Sarr. Amath Gueye ak Amath Gueye. mu ne ñoo tax nga xam fii ñoo la fi indi. Sida Sarr. mu ne Sida Sarr. mu ne yàgg na di fi ñëw. mu ne booba tàmbalee goo fubal. mu ne di seeti mbokkam yi fi nekkoon. mu ne ba loolu moo waral li nga am ci tey nga am ko. mu ne looloo waral sa teewaay fayaa ko tey. ngir fii nga juddoo te ku nekk fi nga juddu foofu da nga ko war a gëstu ba xam ko jeunes yi emploi la ñuy faral di laaj mais yow doo joxe emploi waaye di nga dimbali jeunes yii wutal leen du matériel sport muy bal muy équipement nga indi ko benn muy deux troisième bi en général les femmes ñoo ngi nii yaay bi jógoon yaay bi jóg sànq wax na ko famille moom loo leen wax a wax a wax loo leen mën a dimbali dimbali dimbali financement moo gën si ñoom danga leen di ñu continuer liggéey Pape Matar il mettra la main à la poche pour soutenir école bii ñu nekk tey merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup. mais di leen wax que rek kontaan naa bu baax a baax si accueil bi ngeen ma defal nii franchement gëj naa kontaanee nii et ça ça montre que am ngeen affection si man bu baax a baax e incha allah loolu dinaa leen ko delloo parce que. parce que ñëw naa fi ngeen wan bu baax a baax fii sama sama fii laa bokk quoi. ay loolu man aw ma aw ma lu ko gën a rëy ay di leen wax bu baax rek di euh, d'ici année prochaine incha allah j'espère mu ñëw tabax fii loo xamante ni su ñu fi ñëwaatee année prochaine dina fi def deux ou trois jours comme ça dinañ gën a am temps ñu partager lu bare bari quoi parce que la benn journée lépp xaju si donc euh, yàlla baax na li des yàlla na ko yàlla mottali et di leen wax que rek gën ngeen ma confirmer fi ngeen ma teg yàlla na ma leen yàlla fayal comme ni ngeen bay ñaanee parce que mérité ngeen aussi ma ñaanal leen yàlla na leen yàlla na ma leen yàlla fayal. et jàppante nañ ba pare donc man dootuma leen bàyyi. ba juste du leen juste du leen remercier waat davantage à la, à la prochaine, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à Fayakour et Djeredjef Siakib.